ñu bëgg borom pur Serigne Moustapha Sy ana ah, bëgg le leader du PASTEF le patriote ana ah, ñu bëgg borom PRP ana ah, ñu bëgg Aïda Mbodj la jeunesse du Sénégal yaakaar naa tey ñun ñoo fi daje ñun ñooy la jeunesse consciente ñun ñooy la jeunesse responsable te ñu gëm ne dafa am rôle boo xam ne dañ ko war a jouer en tant que ndaw gis nga leader yi toog ñun daa am lu ñu leen jaral bu ñuy sonn guddi ak bëccëg ñu leen di bundu xataal kan moo tax kan moo tax kan moo tax olof nag dafa am lu mu wax ñoom li tax ñuy sonn ñun la te lëg bu lekkee alom na ko gërëmee ñun ñoom ñooy suñu réson de vivre moo tax may wax toute la jeunesse sénégalaise di wax jeunesse bi nga xam ne ñoom ñoo teew tey ce combat c'est le combat de toute la jeunesse alternance en 2000 en 2012 ñan en 2024 le combat sera porté par donc nous disons à nos leaders ne vous inquiétez pas vous avez la jeunesse sénégalaise cette jeunesse consciente qui est avec vous et en 2024 inchallah le changement va avoir lieu le 25 février Inch'Allah, le ministre de la jeunesse le ministre de la jeunesse je dis bien qu'est-ce nga nous faire? duñu sa vis-à-vis xam nga ñu vis-à-vis Nous ne vis Quand kon vis à tu t'adresses à la jeunesse nous nous Nous duñu le président Macky Sall je dis bien duñu le président Macky Sall

kon nak gaay degg ngeen kan ko dafa am koo xamante dama ne mbootu wanak la